dale nag jàmm seen rubrique culture tey nag dinañ wax ci festival bi nga xamante ne nii moo gën a rëy te moo gën a yàgg ci festivalu cinéma fii ci Afrique. festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO nek na festival bi gën mak fi ci Afrique dina am ñaari at di am fele ci Ouagadougou ci Burkina Faso li tax a bi le festival moy fexé ba yombal li di diffusion bepp xeetu cinéma africain fexé ba lëkkale ñi nga xamanteni ni seen xel màcc na ci walum cinéma ak audiovisuel fexé tamit ba sam si li nga xamni moy cinéma africain nga xamni nek na lu mën a kanam liggéey tamit ci lu jëm ci walum sam ak art li di cinéma africain nga xam ne mën na nekk luy jàngale ak di conscientiser askan wi mbégte ak cofeel bi nga xam ni festival bi jur na ko ci public bi ak cinéphilu Afrique yi ci atum 1969 ak atum 1970 moo waral ba ñu institutionnaliser ko ci weeru janvier atum 1972 ak euh, prix bu mag bi nga xam ne mooy prix bu ñu tuddee étalon d'or bu nga te nga xam ne sax euh, nga xam ne Sénégal jël na ko si bu njëkk ak Allé Gomis ak filmam bi di tey ñu gën ko xamee ci français aujourd'hui ñaar fukk ak ñetteelu édition am te ñu amaloon ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février jàpp yi fan ci weeru mars ci atum 2013 ci thème bu ñu duppee cinéma africain et politique publique maanaam li di cinéma africain ñu lëkkale ko ak li di politique ci thème bu ñu duppee cinéma africain ak politique publique ci atum 2017 nga xam ne ci lan amalee ñaar fukk ak juróomeelu édition bi ak thème bi ñu duppee formation métier de l'audiovisuel Sénégal di na daal di jëlaat étalon d'or bu nga ak euh, film bi di félicité nga xam ni Alain Gomis euh, moo ko moomaat ñu dolli si Ousmane William mbay nga xam ne moom moo jël euh, meilleur prix documentaire long métrage ak Kemtu bu Cheikh Anta ak it Abdoulahat mbay nga xam ne moom moo jël raaya bu meilleure série télévisée ak série bi di tund Tunduwundu ren ji nga xam ne mooy ñaar fukk ak juróom-benneelu édition FESPACO nga xam ne door na ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février nara wéy ba ñaari fan ci weeru mars atum thème mémoire et avenir des cinémas africains maanaam lépp lu ëmb ak ëllëgu cinéma africain te nga xam ne ba bi di Rwanda moom moo invité d'honneur ren sax bu fekkee ni Sénégal euh, bokkul ci ñuy jongante ci étalon bu Yenenga ca FESPACO teewul dina am ñetti film yu ko fay teewal suñu jëmee ci wàllum court métrage film bi di un air de cora bu angel Diaban une place dans l'avion bu Khadijatou Sow ak ordure bu Mawartala kanji ñoo ko fay teewal bu demee ci wàllum euh, document la femme lionne bou Lobengay n'est que court métrage que On a le temps pour nous bu Katilena n'est que long métrage ñom ñoko fay téwal bu ñu démé ci walum série Garmi bu Cheikh Diallo mo fa nek en compétition bu ñu démé ci section panorama nakamanam manam film bi nga xamanteni bokul ci compétition bi moy bu Diago rencontré mon père nga xam ni moom ci sélection bu Sénégal jëmale ko ci FESPACO bu 2019 bi nga xam ni nar na ay bésam ni ki ñaari fan ci weeru mars xanaa rek di ñaanal suñu cinéaste yi nga xam ne ñoo fa teewal Sénégal yàlla may leen ndam ñu jàll si seen xew-xew culturel la mu doon lu njëkk fi ci Sénégal baba Maal daal dinañ ko ràññee ci juróom-ñeent fukk ak benneelu cérémonie Oscar bu bi Dolby Pictures d'Hollywood ca Los Angeles nga xam ni Ludwig Göransson di compositeur suédois mooy daal di jël bile Oscar meilleure musique bu film bu Black Panther ànd seek Baaba Maal beneen xew Euh, diversité et de la langue française l'organisation organisation internationale de la francophonie Yuma Fall fallu ngi woo ñi nga cinéma ci cinéma fii ci Afrique ak fële ca bitim réew ñu gën a defaraat seen toogin ngir mën a gën a di cinéma africain Yuma Fall fallu Yuma Fall mu ngi ko doon xamal ci niki Atina, ci benn colloque nga xam thème bi ñu confronter nos mémoires et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence son économie et sa diversité ci ñaar fukk ak juróom-benneelu édition bu festival panafricain bu cinéma et de la télévision bu Ouagadougou FESPACO ñu jëm ci seen agenda culturel exposition d'œuvres bu artistes yi di Sambou Diouf ak Soli Cissé dina am ñi ki tey fële ca Galerie présentation téere bi ñu duppee Penser l'Afrique qui vient bu Amidou Anna dina am ni ki suba ajjuma bu 18h jotee fële ca raw matériel compagnie mbokk li nag la ñu leen andiloon seen rubrique culturelle bu alxamis di leen jox dig daje beneen alxamis laata loolu di la ñaanal kenn